maa ngi aussi en ma qualité de gouverneur de la région délégué du président de la République représentant de tous les ministres di féliciter suñu président de la République bi peuple bi tànn di féliciter président Bassirou Diomaye Faye di féliciter les nouvelles autorités ci confiance bi leen peuple bi di fàttali rekk suñu réew ni mu bindoo au niveau territorial à l'échelon territorial gouverneur moo yor la mise en œuvre des politiques publiques te bu sobee yàlla toutes les nouvelles politiques publiques bi autorité bi définir engagé wu nañu pour mettre ko en œuvre de la manière la plus responsable pour que ñu mun a saafara jafe-jafe sénégalais yi.